Abdou Khadr Thioun je suis le coordonnateur des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise je suis basé à Dakar en même temps je suis le coordonnateur du projet euh, programme intégré de renforcement de la résilience des communautés dans la région de Thiès. bi projet bi ñu ngi ko tum sumb ci année 2017 projet la boo xam ne nii day euh, jàppale communautés yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès. Euh, benn financement la boo xam ne nii suñu partenaire bu ñuy wax Croix de Belgique moo ñu ko moo ñu ko defal ci ndimbalulu réewum Belgique réewum Belgique moo ñu ko jàppale mooy direction générale du développement projet bi mi ngi toll ci 450 millions donc de pour 5 ans la mi ngi commencé woon 2017 war a jeex décembre bii di 2000 2000 2021 projet bi aussi dafa am ay composantes yu bari maanaam mbirum santé wér-gu-yaram yi nga xam ne au niveau communautaire benn nga xam ne ni ay eau hygiène assainissement mooy lépp loo xam ne ni ci wàllu cet la ci wàllu construction ay latrines ci wàllu formation yooyu ci la bokkoon ak li nga xam ne ni environnement la maanaam ñi nga xam ne ni mooy jaww ji ak euh, nu ñuy nu ñuy gàncax geeg yooyu nan lañ leen di toppatooy ak lépp li nga xam ne ni mbiru reboisement la ak yooyu ak bi nga xam ne ni tamit renforcement yi nga xam ne ni ñu ñuy doxe leen ñu fexe ba dooleel dooleel comité yi dooleel comité croix rouge yi dooleel association femmes volontaires yi donc loolu moo nekkoon composante projet bi unité bi c'est pour les femmes volontaires femmes volontaires yi ñoom ñoo tax ñu defar unité bi ñoom ko ñoom lañ ko kiyal dañoo jàpp ni famille aussi ku leen di dimbali da nga leen fekk ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey donc bu ñu leen defalee lu mel ni unité bi nga xam ñu koy def diñ ci defar ne day riche en valeur nutritive dina lutter ci malnutrition ñu mën koo seen seen seen ñu ne kon nañ leen defal unité bi ba pare accompagner leen ci nan la ñuy nan la ñuy transformer produit yi nan lañ koy mën a commercialiser pour mu a ñu mën a am seen autonomie ñoom nga xam famille pour unité bi rek ñu ngi ci dugal 15 millions ci construction yi 15 millions lañ def pour construction yi donc après construction yi dina am équipement boo xam ne mooy accompagner unité bi bon travaux yi nag ñu ngi ko estimer ci 2 mois 2 mois lañ jàpp ni ci la travaux yi war a jàll. deux mois donc fii ak deux mois normalement war nañ fi ñëwaat pour inaugurer unité bi en attendant après ñu def équipement yi après la production commencé ñu dem leen accompagner donc normalement balaa ñu ak 31 décembre normalement lépp war a yemb ndax euh, léegi financement yi yëpp taxaw na. ñooy aussi dañoo jàpp ne bu fekkee defal nañ leen a dolliwaat yeneen parce que ku ci nekk am nga sa projet personnel jigéen ñi am nañ seen i projet personnel ci biir groupement bi am nañ ay projet personnel ñu ne nañ leen defal ay fonds yoo xam jox ñeneen donc mu def ko genre fonds tournant ñu ne léegi kon nañ leen defal ay subvention ci lañ jël département Tivaouane subventionné fa lu toll ci juróomi groupement fii département Thiès ñu jël ñaar en attendant bu ñu ñëwaatee tamit ñu joxaat ñeneen biir Thiès après ñu jox yeneen comité yi nga xam ne bokkuñu ndax projet bi vingt localités la jël en charge vingt localités rax nañ cinq fële at Tivaouane et deux à Thiès ah xaalis bi mi ci deux cent cinquante mille à cinq cent 500000 am na ñu jot 500000 am na ñu jot 300000 am na ñu jot 205000. dëkk Mbomboy dëkk bu ñuy wax village bu ñu wax Mbomboy maa présenté waa groupement bi fii bi Amazone la mais dëkk bi Mbomboy la mais mais ñi ñu jox financement yëpp laay presque waxal parce que ñun tamit dañuy sant yàlla ah di jaajëfal waa Croix Rouge ndax waa Belgique bu ñu mënoon ko jox ñu def ko def ko neneen daal mais dañ ñoo woo au lieu ñu jàng ñu may ñu jënd dañoo jàngal nag. loolu dañ ñoo jàngal nag comme que dañ jàngal na fekk ñu yëngatu ñu dooleel ñu dañ leen di sant di leen gërëm fas yéene it commencé waat liggéey jàppale leen ci ni ñu bëggee ndax it dégg village yi femme dafa dañoo amoon coono mais boo seetee comme que ñu ngi yëngu fu ne yàlla ñëw waa croix gis leen di def visite foofu ba gis leen parce que ne leen jàppale ñoom tamit jël nañu pour engagement liggéey ay transforme ay ki céréales yooyu yëpp dañ koy defar te boobu suñu jafe-jafe yi dañu amul woon problème ay fonds yooyu ndax ñoon ñoo doon jéemal suñu bopp dañ daan cotiser di defara suñu bopp tey jii waa croise ñoo ñu jël engagement commencé ñoo jox ay financement ci la ñu njëkk a fu jox financement à part di suñu yëfu bopp croise moo ñu njëkk jox financement pour ñuy liggéey waaye ñun suñu doole bi bopp lañ daan demee waaw boobu it ñu ngi leen koy sant bu baax waa njaay moobu tamit amoon nañ ko ndax ñun dañ ko daan defal suñu bopp di ko jaay ci suñu biir amuñu woon problème fu ñuy jaay dañu amoon problème fu ñuy jaayee loolu moom amoon nañ ko bu baax mais comme que ñëw nañu parce que yéen liggéey ak ñoom am na loo xam ne ñu ngi ko ciy gestu pour am fu ñuy tamit. soxla ngeen loolu. waaw soxla nañ ko bu baax parce que yi jaayee ci suñu biir du ñu arrangé ndax dañoo bëgg a yaatal comme que dañu jox financement doole la ñu amoon dañu bëgg a fas yéene yaatal liggéey bi loolu tamit ñu ngi koy sàkku Euh, ce projet, c'est une des composantes du programme intégré de renforcement de la résilience des communautés qui a par la Croix de Belgique un financement du gouvernement belge qu'on appelle la Direction générale du développement, la DGD. C'est un projet qui a commencé en 2017 et qui devait prendre fin en 31 décembre 2021. Euh, c'est un projet qui avait quatre composantes. Il y une composante santé communautaire, il y avait une composante euh, au hygiène et assainissement, une composante réduction des risques des catastrophes et enfin une composante renforcement des capacités. Donc ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est entre dans le cadre de la composante renforcement des capacités opérationnelles des comités Croix-Rouge à travers les femmes volontaires pour euh, la construction d'une unité de transformation et des produits. Euh, L'unité de transformation sera bâtie sur un espace qui a été euh, aménagé par le comité départemental de Thiès sur 150 euh, mètres carrés. euh, unité euh, avec l'appui des services techniques de l'État avec qui nous avons signé une convention depuis le début du projet euh, qui nous ont donné un accompagnement technique euh, pour la formation des femmes, mais également pour euh, la spécification du, du design qu'on va utiliser, le modèle d'unité de, de, transformation qui sera adopté au concept moderne. Euh, c'est un travail qui a été fait depuis le début du projet, donc c'est aujourd'hui que tout a abouti et que nous disposons pouvoir démarrer les travaux. Donc c'est l'enceinte du comité régional, comité départemental de Thiès qui va abriter l'unité. C'est pour les femmes du comité départemental. Mm-hmm. la durée de la construction, c'est pour deux mois. Le montant qui est attribué à l'unité, c'est de 15 millions pour les constructions. Ensuite viendra après l'étape d'équipement du, du, du, de l'unité. Mais les constructions, tout ça autour de millions. les activités qui sont prévues pour cette unité, c'est d'abord euh, euh, la production, des, la, la transformation des produits céréalières. euh, au niveau de la, de, la, de la région de Thiès. Vous savez, ce projet euh, prend en compte 20 localités. 20 localités qui, sont, qui ont été jugées comme étant des localités qui avaient des soucis dans le cadre de, de la résilience des communautés. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les différents groupements de femmes qui sont dans les 20 localités vont travailler en synergie. Et cette synergie-là va commencer à partir de la production. Donc il y a des comités qui produisent, il y a d'autres qui transforment et Donc on a déjà travaillé avec d'autres organisations pour leur formation. On a déjà formé les femmes sur la transformation des produits, on les a déjà formées sur l'écoulement, sur la, sur, sur, sur, la commercialisation. Maintenant, on les forme maintenant sur le développement des business plans pour des projets personnels. Après que les produits sont transformés, pour que ça puisse être euh, euh, euh, euh donc ils sont accompagnés dans ce mécanisme. Ça, ça entre cadre de le les subventions pour qu'ils puissent qu'elles puissent développer leur propre projet personnel donc nous avons euh, des femmes chaque femme a, son projet personnel et les groupements de femmes aussi ont leur projet qui les entre les uns donc à la fois nous donnons les subventions pour que les produits puissent transformer puissent être revendus mais après en dehors de ça nous mettons des projets de fonds tournants aujourd'hui nous donnons des subventions en groupe le groupe va transformer femmes qui sont au niveau du département. Donc c'est une première phase de financement. On va revenir après pour les accompagner dans d'autres financements. les financements varient entre et pour la première phase. Après, on viendra pour voir comment cela va fructifier et combien ils vont recevoir après. Euh, aujourd'hui, nous avons financé 5 groupements au niveau, du, département de Théâtre et deux ici au niveau du, département de, Thiès.